këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ñu xàmmee nañ piis ak reket nga tëtal ma kër gaamu ngay boole. sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gaamu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah. Ah, yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi. ay ayca salaamaaleykum mbokk yi ah ginnaaw bu ñu nuyoo rek di leen ziar moom ba léegi rek ñu ngi fii saal ah fitness nekk fii ci parcelle fekkaale fi nag benn champion daanaan ëbbali daa dawoon nag saison bu ubbi na gis nga mu raar raar ba def su retour parce que bu daanaka supporter am dañ doon jooy amateur yi mere ko mu wàcc def ñaari sorti yàlla suturaal ko mu am dem nag dëkkam ah ñàkk rek dawaat waaye avant dara dama koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu ngi nuyu ñu koy seetaan ci Lutte TV waaw euh, Boucar ginaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi jóg si yonent bi sant suñu ñaari waajur di nga nuyu di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan yëpp di nuyu suma mbokk séeréer yi di nuyu képp kuy bëggee Ibou Ndiaye ma kenn àdduna maa ngi nuyu ñëpp di nga ziare Boucar bu baax a baax. ci lan ne. maa ngi si li ma nekk rek nekk sumay entraînement nekk suma bopp rek waaw comme si li ma doon nee chaque jour rek waaw. saal la fekk tey. waaw saal ngeen ma fekk xëy nañ dem daw yi longue distance. yee ñëw nekk si saak bi ay 11h midi suñu paree ñu dem tëdd récupérer ba 4h ñu jóg demaat din ya waaw si kooku ñuy nekk daal chaque jour. nekk nag ñu ñu jël si woon nag George Poit. xam naa mu nekk sa frère ngeen bokk Île du Saloum mu am combat nag. parce que premier combat ku ne xam ne ne combat capital lay nekk ci mbër. rawatina nag mu war si muy bëri si bés bu mag. parce que ku ne xam ne ne Boy Niang Balla Gaye moom jëne yi sax dinañ seetaan si. sa conseil lan lay nekk ci moom. waaw George muy jant ak Boy. waaw di koo xamante ne ñoo boo bokk UGD saagum parce que ku ne tey joof yor ne mar mar sugum mar faafa ko waaw euh, mar wocceeg yëpp xam nga di nuyu mar yëpp ñu ngeen di nuyu waaw parce que ñu ñëpp ay doomu séeréer lañ ay frère lañ lu ñaaw xajul suñu diggante waaw tey sorso day jël gàmb taseeg man yëkkati dara jox ma ma jël gàmb taseeg moom yëkkati dara jox ko xam nga di ko nuyu bu baax di ko ñaanal combat bi jëm suñu borom suturaa ko si may ko si ndam yee parce que tey mbëru séeréer bu am combat ñun doomu séeréer du ñoo war a ne ci ginnaawam waaw di ko ñaanal ndam xam nga di ko ñaanal euh, combat bii nii mu jëm suñu borom na ko séeréer yëpp jàppale na ko arrondissement fi mu ngaa jàppale monsieur le maire Youssou Diom monsieur le maire Karim Sène ñëpp nañ ko jàppale ak suñu grand Yann Bass nañ ko jàppale bu baax mu indi ay supporters indi mboogoo parce que làmb ji léegi il faut nga am ginnaaw am mbooloo waaw nañ ko jàppale première sortie nga nañ ko jàppale bu baax mu génn ñëw def différence yee parce que xale la te gëm na li muy def te am na talent waaw di ko ñaanal ndam di nuyu suñu grand Mamadou Ndiaye bu baax a baax suñu idole waaw ancien gloire la taw non daw de ba dee dafa taw mu ngi entraîné te ñamul wàcc ma yow gisoo temps yi yi may mbot Mamadou may jox yooyu yëpp waaw Mamadou fan yi rek rek mu wàcc dafa nekkoon si boppam rek xam nga Ndiaye borom jom nga moom bëggu di ñëw di ñàkk dooge yenn booy yi di ko immigré wala di ko kii moo tax mu ngi si ruqam di entraîné bu baax te rek mu wàcc insha allahu rabbi waaw di yokk ci yaa ngi entraîné saison bi naka nga ko jàngatee ñetti sorti nga def ñàkk benn bi am ñaar ah démb sax maa gis laay ah, laay président di ko tooñ naan ko ne da ngeen daw waaw laay président suma grand moom day sonn si man non du question de daw sax xam nga Boucar Gamb am na fu muy toog xam nga euh, il faut que nga euh, nga parce que ñu nekkatuñu mbër yoo xamante ne nii comme da ngay topp di bëri di bëri di bëri te et puis dama koy wax chaque jour man sama objectif boog man sama bët wallaahi azim si bëre dóor bi la nekk ak si combat yu mag yi mais mbapat mi Boucar amatuguñ siy prouver Boucar façon mbapat bu ne jëg nañ ko fu ne jëgee nañ fa gàmb waaw amatu gi ñuy prouver xam nañ ñu si bëre simple comprendre nga kon il temps wax dëgg yàgga ñu concentré wu si bëre dóor bi wane suñ bopp waaw moo tax benn instant da ngay dem ba xam nga rek dangay ngay bëgg a sax dangay ngay bëgg a xam nga maa ngi koy wax sànq maa nga naan Boucar seet naa ba seet daaw waaye at bii daaw su ma amul combat maa ngi jégalu suma supporter yëpp damay bàyyi bëre waaw dem xooli leneen quoi. waaw non du Europe sax fii foo nekk suñu borom mu ngi fa yee Europe ak Sénégal ak feneen a ci yam ñun daal dañuy ñaan fépp fu ñu nekk rek yàlla nañ fa am jàmm te di fa jot suñuy wërsëg. foofu nag yaakaar naa duñ fa yegg parce que mbëri yaa ngi fi bëri nañ mënuñu am combat Ndiaga Dolé mu ngi fi amul combat Abdoulaye Diop Yoff mu ngi fi amul combat général bu Fass mu ngi fi amul combat tey boo demee Tëngéej am na fa ay ñëw mën a bëreel nga dem Pikine am na fa ñëw mën a bëreel yaakaar naa ne problème kon la bi fan la. man kay looloo ma jaaxal si mbër moo xamante ne nii mbëru gox nga nekk mbëru dëkk boo jógee ah région de Fatick jóg boo jógee waa Diofior jóg buy si jóg oto yi parcelle 1 ba 26 xam nga sa gars yi xoolal su ma amee combat sama ñaari combat yi ma am saison passée imagine toi yow saison passée nga am ñaari combat yow duy stade bi ah jënd billet ñoom Pape Sarr ak ñoom jimboo yëpp duy stade bi ñëw bëre wane sa bopp ah ba pare ma neex naa bëre damay indi supporter damay animé te man duma xeex. waaw Ibou Ndiaye du xeex. waaw man moom du ma xeex. gars yi kon nañ ñëw ñu bëre sa waay benn benn weccet benn xaalis bi ñu ngay fay ah mun nga si dem investir dem dimbali sa bopp ah mais toog nii rek yow am na mbër yoo xamante ne ñàkk nañ jom ñàkk jomam jara na nga ñu bañ a jël combat bi comprendre topp di ñaanaatu ah topp euh, nit yi jox ma dara mbër nangam nangam te yow dañuy fay benn 1 million 500 wala 2 millions ne nga Ibou Ndiaye nga Prince mu yegg sama avance Prince woo na mbëru Sénégal yëpp. ku mu woo ne ko ëbbëri laa nga bëgg a jox Ibou Ndiaye dootu la déggati. prince man prince soxo mu ngeeg sama avance mbër bu si pare na woo prince ah, mu ngeeg sama avance mu ngeeg xaalis bi ngeen tase CNG mu jël sama licence bi ñu fi fisale combat bi mais ñu bëre tàkku saan mun nga ma daan mun naa la daan mais wéere programme mais mbëri la ñuy jël di leen kii di tëgg ay comédien wak xam nga ay affaire yoo xamante ne doo xool làmb ji ay produits yoo xamante ne dañoo war a wane seen bopp grand frère ñu ngi commencé bàyyi bëre ah ñu war a wane suñu bopp mais nar a tardé nii si làmb kon ñu dem xool leneen bu du yoon nañu wax ñoo bëgg a ñoo bëgg a bëreel comme que nag prince yor na sa avance kon prince jàpp si ah prince borom PABC doom day bokkum borom hôtel Sey Salim bokkum nag sama nijaayu bopp la ma koy ziar di ko nuyu de passage rek ah, prince doom day bokkum doom day goo fay ñan nga bëgg bëreel te Boucar man xool goo fay kese kese kese kese daf may jëndal gu mot 2 millions bi waaye nag dégg naa ne goo fay moo tax nangootoo bëri si non goo fay kooku aw ma fayam kooku noonu tey mooy loolu man man man aw ma aw man aw ma fayam. waaw bëri nekkul ne loolu loolu ñu am tamit moo tax tam dootuñ sawar ci bëri parce que tey yow samedi bu jotee nga war a mën a dem bëri ji boo goo fay am réunion. mu leer na tey boo fa demee di nga fa laal benn téeméeri junni te doo te doo te doo buuxante. ah est doo dem si réunion goo fay toog rek. non kooku su mag goo fay daf maa bëgg boppam te yàgg tax kooku grand frère la ci man di ko nuyu mook mef xam nga ak ñoom Demba Soare président ASC Magadan xam nga dafa am grand yoo xamante ne man Boucar xam nga ah ay Moussa Gamère yu si Diom xam nga ay Maam Waagi Diom France ñoom Jogo Baas sama grand yi xam nga ay ñoom Maadou jon dafa am ñoo xamante ne Boucar ñun duñu ay mbër yoo xamante ne nii Boucar ñun ay mbëru gox gañ ñun bu ñu jugee gars yi dañuy teg xaalis bu wax Ibou Ndiaye tey boo ko fayee 2 millions Ibou Ndiaye dina indi di millions su ma jugee séeréer yi jóg waa défense séeréer yi nekk défense séeréer euh, yi nekk port dokeer yi xam nga ñun fu ñu dem Boucar dañuy am sax programme di nuyu amateur lutte simple yëpp parce que Boucar amateur lutte simple yi dañoo bëgg suñuy bëree da gis gars yi dootuñu xejati te et puis nag Boucar yow Ibou Ndiaye si biir làmb yow Boucar est-ce que gis nga làmb ju ma dugg du neex nañ waxante dëgg waaw xam nga man xorom si cin gaa damay dugg si làmb fekk fi sama gars yi ñoom ordi jàpp seen waxo ruube ngeen yëngal sama gars yi maa ngeen nuyu xam nga ñoom caaka fay gars yi man damay su maanaam du ñëw rek bëri jël làmb ji dem mais il faut ngay animateur dañuy soxla satisfaire leen yëngal xam nga defuñu ko ngir dara mais dañuy neexal rek di nuyu champion yi nga xamante ni ñooñu bokkal géew yëpp yee combat Doudou Sané bi ñu ngi siy woo ñëpp ñu ñëw jàpp si waaw Doudou Sané nag si gars jàpp jàpp vingt cinq bi nga war a bëre incha allahu rabi naw waa région de Fatick waa Casamance waa yoor ñëpp nañu jóg mook booy Babou saar ñoom ñaar ñëpp dañoo am combat waa na ngeen gars yi jàppale ñu ñëw wane suñu bopp comprend nga Boucar man waruma taxawaagu si làmb damay am lu ma yee man waruma taxawaaw parce que Boucar yëpp ngay wër si mbër bu dee cosaan bu dee anime te Boucar yow xam nga ne làmb ji kenn daaxuma sa fecc bu dee ambiance rek yow xam nga ne man damay ambiance ba mu neex waaw te nit yi gars yi dañ ma bëggal seen bopp te yaa nga tax kon léegi man programme mu adversaire mooy suma programme maanaam mbër bi nelaw ba yeewu rek fipp ne damay dem jëge avance Ibou Ndiaye ñu def si signature bëri waaw man du ma xeex ah Boucar man du ma xeex neex naa bëreeg yow indi say coup di dóor say rafaar mooy dama ngay jéem a jàpp rek ñu bëri waaw daan nga mun nga ma sax daan kon uyee nga programme waaw xool nga ne mbëri nañ ñëw ñu bëre wa wa wa daal maa ngi koy wax ñëpp incha allahu rabi ah ñi ñuy gis ñi ñu doo gis nag si mbapat mi chaque instant chaque instant di wax wax bu bëri du dara ñu ngi si suñu ruq digg géey mais am na mbapat yoo nañ ñëw pour wut wecc rek mais nekkul loo loo nekkul loo focus non non du sama objectif parce que borom bi bitiku mbagg boo gis mais yow ay ñoom mool un ay ñoom Edouard Dimba Diom ay amul amul lu ñu deful ay ñoom Mbalka Maak ñooñu nga lañ def si mbapat ñun lu ñu deful ah yow ay ñoom ay ñoom baabaak xoolal champion yooyu noonu te pourtant nag nit yi xamuñu leen am na ñoo xamante ne xamuñu ñooñu te ñooñu amul lu ñu deful si làmb simple mais anañu tey ñu tey mais man tey fi Yaxya Jóob tegoon yi ki Yaxya Jóob yi ki nii tegoon bëtam man foofu laa teg suma bët si làmb su ma demee nag ba mënuma maanaam bokk si catégorie boobu buuxante te bu ko géant dafa manqué si làmb ji waaw da ngay gis ñu ne ay grand combat bi nga ñëw gis grand combat bi ñëw toog ni Issa Thior ñu ne mooy grand combat ay mbër yuy pesé 60 kilo ah te ay 140 kilo nekk fi de muscle bari dooge comprendre nga nekk ay xale di fecc di animé yor yëpp mbër. loolu moom du yor xorom. waaw bu doon sax ay mbër yu ñàkk caac lañ wala duñu neex ak wala duñu saf xorom mais yow xam nga ne Ibou Ndiaye làmb ju mu dugg man su may ñëw si làmb rek amateur yi taxawoon si bunt bi yëpp dañuy daw jënd bi yow gis nga Boucar dañuy daw jënd bi parce que xam nañ ne jaay perek bi dina ruube làmb ji. mais léegi gars yi comédien yi fecc katu sabar yi léegi kon ñun mbëri kon nañ dem defi ji ganeen rek waaw nañ dem defi ji ganeen moo gën man moom wax dëgg yàlla moom dama instant bi dama sonn combat combat sama koñ booyi fii interset waaw mais mbër sa combat bi ma ne leen ah sama sama grand frère yi nekk kaaw parce que bu ko ñu dañoo am ginnaaw dañoo am jàppale gars yi dañoo tëgg suñuy combat mais du yoon ñun ñuy taxawaagu si làmb mais bëri la rek que le meilleur gagne mbëru simple rek gaa ñemeetuñ leen mais mbëru mooy mbëru mbëru simple amul man koo gaay bañ a dégg parce que xam nga mooy programme bi mais Boucar imagine toi nga entraîné nekk xale bu góor bu am doole ah sa bopp nga dégg ne Grand Yoff fii teg nañ fi un million te mu wóor la ne boo ko demee jëri sa waay doo wër di ñaan kenn doo fëgg bureau kenn doo taxawaagu di ñaaxal sa bopp fayda si kanamu kenn sa soxla boo am di nga ko fajal sa bopp di nga dimbali say waajur ah mais nga toog naan noo mbëru mbëru mbëru dóor laa di année balance rek di dem at bi di nga fi bàyyi ah? mbëru simple amul fii xam nga moo fi am gëm sa bopp ak jom mbër moo fi gis tàllal micro mu naan diw mbëru simple gaa ak nangam xam nga ne kooku dafa ñàkk jom mais mbëru simple amul yee kon ñun dañoo war a wone suñu bopp ay xale yu ndaw gañ gars yi nañ ñu jël comprendre kenn si ñun amagul 30 ans nekk ay booyu ndaw di entraîner ku dégg bëccëg subaa ngoon ah, mais ñu topp nag tamit mbapat yi di fu fu mbapat am rek nga dem taxaw fu mbapat am rek nga dem taxaw fu mbapat am nga dem taxaw fa mais mais ñun mbapat bi du suñu objectif bëre dóor bi mooy suñu objectif dafa am produit yoo xamante ne comme ay ñun ak ay Serigne Ndiaye Doudou Sané ay Georges Poitre ay Général Malika gaa yooyu noonu dañoo war a yéeg nekk ci kaw waa ñu ñooy relève bi ñu dagante ji si kaw tey sorso mii nii boo ko fayoon tey ay millions ah waxuma nga ay millions sax Bombardier sax boo ko joxoon mu bëreek moom tey Doudou Sané boo ko joxee koo ko munti jox si làmb ji day bëreeg moom parce que ñun amatuñu problème mu bëreeg nit. am nañ taay bi am nañ ginnaaw gi ah am nañ lépp kon uyee nga programme bu kar ah. VIP yi daal moo George nee na VIP yi daal moo war a moo war a jeex. waa waaye ay VIP benn dix personnes nekk si kaw rek di bëre seen biir xam nga. mel ni waa mel ni làmb ji daal maanaam tey ñooñu kese ñoo si ay mbër. moo tax tey sponsor dañuy dem ba dañuy découragé parce que yow yow. bu ñëwee duñ bëri dañuy bëggoon. bon ñi nga war a sponsoriser ah chaque at même personne yi di ñëw di bëre day dem ba day soof. bu ñëwee du ñuy combine sax yaakaar ne na mun na see xëj gars yi mun nañu reer sax ba pare xëy ñëw làmb jëkk kii taxaw fii kii taxaw fii ñu xool nuñ ko gérer rek après ku nekk laal ku nekk laal sa benn weccat après ñu dem nañ tëggal booy. maa ngi lay bëgg maa ngi bëgg ñëpp di sant ñëpp di nuyu ñëpp xam nga di nuyu suma mbokk yi di nuyu waa Diofior xam nga di nuyu waa Sikaab sama waa koñ di nuyu gaa yëpp xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jeg jéggagu ñëpp nag ah di wax gars yi daal incha allahu rabi nañ ma ñaana promoteur yi nañ ñëw tëgg suñu combat ñu bëre wane suñu bopp mais lutte simple bi moom saay bu ñu ko sentiree rek pour maanaam euh, compétir rek dinañ ñëw quoi mais du suñu objectif. di jox gars yi nag rendez-vous le 18 décembre fële ca terrain gaal gi Yacine moo fa woote waat yaakaar naa ne journée yaa ko jël carte production. Mbayang lu moo war a nekk ak Maodo Faye yaa seen de tegal fa mbëri 2 millions benn drapeau lay nekk nag ah, sama waa ji yaas bi mujjee tëgg moom yaa ko jëloon waaw waaw maa ko jógoon xam nga di ko nuyu bu baax di nuyu papaam père Ambroise waaw ah, di wax gars yi incha allahu rabi dimanche bii di ñëw ga xam nga na ko gaa yëpp waajal xam nga euh, gars yi ñëw foofu noonu wane seen bopp competir xam nga ku si suñu borom dimbali rek waaw nga jël ko ko mais man moom instant bii nii mooma ah, rite simple moom aj naa ko quoi. ba ci nga xam ne yaa ngi ñëw rek mais loolu amul problème waaye tamit di bëgg nag dadi deux roues benn la nekk dadi deux képp kuy defar moto fii mooy sa chef dadi yaay number one ah maa ngi koy bëggee di ko ziar bu baax a baax a baax di waat tamit rek ah le le 8 janvier production tamit tegal na Adrien Senghor astafurlah terrain gaal gi 3 millions kon Bari production teg na 3 millions terrain gaal gi le 8 janvier la. le 8 janvier. waaw waaw waaw. incha tamit gars yi tamit seen yaram dafa tàng de gars yi simple. waaw gars yi seen yaram dafa moom ñu ngi. mais tamit maanaam sens la pour booy yi mënut a bëree booy yi mënut a am nga tey dafa am mbër yoo xamante ne da ngay na ñii seen objectif maanaam seen li nekk seen bopp mooy maanaam seen carrière si simple ngay yem parce que am na mbër yoo xamante ne nii maanaam ñoom ñoom nga gars yi war a topp naan nga sawaay bëri ji bëri bëri mais dafa am produit yoo xamante ne foo ñu génnee leen maanaam dafa am produit boo xamante ni il faut que ñu génnee leen si lutte simple ñu concentré wu si lutte dóor lutte avec frappe yee ñi war a def lutte simple nag def lutte simple waaye man boobu Ibou Ndiaye wax dëgg yàlla sama objectif ak li nekk suma bopp noo lutte avec frappe la quoi di nuyu basuka bu ngoy depuis États-Unis ma koy bëggee di ko jaar fàqmaan nee ma nag Boucar Eubeuli mooy sama mbër mu nekk ñoo xamante ni tamit xam naa booy bëri dañuy sonn boo demee ci làmb daanu dañuy rus est mel noonu yàlla ngeen di bàyyi yéen a ngi leen di bàyyi xel. leen di bàyyi xel bu baax parce que Bazoka suñu grand ga ñun depuis bi ñu koy xam marché bu ndaw gañ marché ko tapé gañ doon tase nekk booy bu ndaw di ko fekk foofu noonu muy entraîné ñuy ànd ak moom di ko nuyu di nuyu waa États-Unis di nuyu suma grand Garga Mbossé xam nga di nuyu Cheikhou Mbaye waa États-Unis ñëpp maa ngi nuyu parce que am naa fay grand yoo xamante ne nii xam nga dañ siy jàpp quoi waaw Boucar di nuyu ñëpp di nuyu suma waa koñ Diofior bu baax a baax di nuyu suma waa koñ fii parcelle 1 ba 26 xam nga di nuyu suma grand Khalifa Gueye ay ñoom Serigne Tag xam nga gaa yëpp maa ngi leen di nuyu Boucar nuyu suma grand maam waa gi Dione maam waa gi Diom depuis France di nuyu suma grand frère xam nga di nuyu Jogo Baas menuisier métallique xam nga di sant ñëpp di nuyu ñoom ministre ñoom Khadim Dubaay sama gars yi Dubaay ñoom Kodion xam nga gaa yëpp maa ngeen nuyu ñoom Kangu jàngar Maroc xam nga boroom Maroc xam nga di nuyu mafia bi di nuyu suma grand mbee Senghor ak gars yi nga te ne ñoo yor suma gàmb di ma jàppale muy ñoom Issa nii xam nga ñoom Abdou Baas maa ngay nuyu ñoom Seeku Ndiaye suma nijaay Babou Ndiaye Doudou Thior xam nga Cheikh Thior sama yaay Adam Ba Maas xam nga ay sa fay ak yaamaan ñaari jaay pereg yooyu xam nga ñoo ngi nuyu ñëpp ñoom gaay prési suma grand day sonn si man di ma jàppale bu baax a baax a baax waaw di nuyu nag ñëpp di nax gars yi nag incha allahu rabbi waaw nañ ñëw tëgg combat yi ñu ñëw bëre wane suñu bopp si bëre dóor bi mais instant bii noom ngit simple moom xanaa fin saison ba rek waaw gars yi nañ continuer di bëre rek maa ngi lay bëggee di bëggee nag Yoro Kanté depuis Angleterre sama waa ji maa ngi lay bëggee di la ziar di la ñaanal jàmm di jox gars yi rendez ba benn yoon incha allah la ni man déggoo ma waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy. sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gaamu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi.